muy tolloog ñeenti at ci ren ji ECOTRA ji amal liggéey bu am solo ci dëkk bu sell bi di Touba rawatina bu màggal jubsee dem ci taataa ndox yeek yu ni mel ñu jéem koo defar ngir Touba mën a gën a taaru balaa màggal gi di ñëw Alpha Samb ingénieur polytechnicien du projet ECOTRA di àddu di ñu xamal. at mu jot ren di ñeenteeli at ñu ñëw fi mun nañu bàyyi lépp lu ñuy liggéey lu ñu am ci matériel ak lu ñu am. ci ah nit nañ ko indi Touba taxaw ci liggéeyu Touba fexe ba Touba lu fi nekk te waru fi ne ci ñàkk set ci ndox muy taa ci tali yu baaxul nañu ko régler ba balaa bésu màggal gi lépp nekk ci yoon loolu lañu ñu sas di yëgal sëñ bi naka moom si la lépp moom la donc li mu ñu sas mooy lu ñu man ak lu ñu mënoon nañu ko def ba Touba màggal gi bu yegsi na fekk lépp normal li ñu amoon ci matériel yëpp indi na ko fi li mu amoon ci personnel yëpp indi na ko fi gradeur yaa ngi fi bulldozer yaa ngi fi pelle yaa ngi fi camion yaa ngi fi nit ñi leen di doxal ñëpp ngi fi moto pompe jënd nañu fi ay pompe yu bëri yoo xamante ne bu ci nekk war na toll ci cent vingt mètres cube heure ñu ngi nii ci seen gannaaw. ba tey si ay doom dëkk yi wër Touba tamit Ecotra bëgg na def kéem kattanam ba dem beeg dikk bi gën a yomb. lépp pour jëlee fi ndox mi defaraat yoon yi euh, def liggéey bi nga xamante ne moo nekk ci biir université bu bees bi mu ŋànk ŋànk zone bi nga xamante ne mooy zone jumaa ji ak poste de santé bi danañ ko defaraat bu mu mel na ko sëñ bi bëggee incha allah dëkk yi wër Touba yoon ya fa jëm yëpp danañ ci taxaw. ba dem bi ak dikk bi du am benn gàllankoor ci biir màggal gi fu ndox taa ci dëkk bi dana nekk suñu yitte fu tali dagg ci dëkk bi dana nekk suñu yitte loolu lépp dinañ ci taxaw ba sobee suñu borom di ñaan sëñ bi mu dolli ñu ñaanal ba lii ñu samp ngir bëggal ko lu lu lu lu dëppoo ak bëgg-bëggam bi mu bëgg a defal sëñ Touba. yàlla jàppale ñu ba ñu mën ko defar ni mu ko bëggee. Serigne Cheikh Mbacke Abdou Latif jiite mbooloo mi set setal dëkk bi ak di ko defar ngir waajalee ko màggal Touba gi. mi ngi yëkkati ay kàddu sant jëme ko ci Ecotra gi taxawaay bu rafet bi ñu amee ci dëkk bu sell bii di Touba. màggal gi. ndax màggal gi. tàmbalee dugg ci nawet bi. tàmbalee dugg ci nawet bi. ñu daal xam ne kon. ñu daal xam ne kon. at ya ko njëkk. at ya ko njëkk. dañ doon setal dañ doon setal rek. léegi nag dañuy boole setal. léegi nag dañuy boole setal. ak tàng ndox. ak tàng ndox. ak sëkk. ak sëkk. kon mu ñett liggéey yu bokkul. kon mu ñett liggéeyu bokkul. waaye liggéey bi ngeen ñëwee. waaye liggéey yooyu yëpp bi ngeen ñëwee. jàpp jàppale ngeen nu ci. jàppale ngeen nu ci. ba am ci résultat bu rëy. ba ñu am ci résultat bu rëy. bu rafet. bu rafet. te loolu. te loolu. Pastef ab Ablaye Sylla la. Pastef ab Ablaye Sylla la. ak yitteem. ak yitteem. ndax doomi dëkk bi la ndax doomi dëkk bi la taalibeb Serigne Touba la taalibeb Serigne Touba la kon dañ koy ñaanal mu yàgg fi kon dañ koy ñaanal mu yàgg fi ak personnel bi yëpp ak personnel bi yëpp ak ak ak jëmmi entreprise bi ci boppam ak jëmmi entreprise yàlla defal leen barke. yàlla defal leen barke. yàqu yi taataa ndox yi si yoon yi jëlee ko fii doon bébétu Ecotra di dellu di ñaanaat Serigne Mountakha Bachir di xalif général des murit mu doolu leen ñaan ba li ñu bëgg si dëkk bu sell bii di Touba ñu amal ko ni mu waree.